sori ndax mbirum baatin la ndax mbirum sëriñ Béthio sëriñ Saliou dana ko woon sallaahu day ñépp dina ne Cheikh Béthio àdduna sépp dina ne Cheikh Béthio loolu nag moo yegg ci lii ñuy gis walla lii ñuy dégg ci njabootam bi waaye da ci am loo xam ne sëriñ tuubaa da ko leeral ndax sëriñ Saliou mës naa wax seex Béthio ne ko hmm, sallaahu day na nga fexe bu jamono suppi ku mukk de ba nga waroo ak ndigalu xalifab Sëriñ Tuubaa te lu yàggul dara bi fi seex bi defee ay seexal ne dafay seexal ak seexal seexal déew ba yàgg yegg ci ay seexal ay jigéen sëriñ si seex Sidi Muxtaar moo fi nekk xalifa général da ko woo ba mu ñëw ne ko sàllaahu lool yi di may dégg de moom teg ko ci suuf lu seex bi def lu seex bi def woo rajo bi ak tele bi wax ne leen képp ku ma seexaloon dindi naa ko nee naa sëriñ bi nag sax ba man mii sama ceex sax su bëggee ma dindi ko mm-hmm. bëggee ma teg ko ci suuf sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar ni ko sàllaaw yow waxuma la ndax yow sëriñ li nga am ni nga mel sëriñ Saaliwoo sañ sañu sëriñ Saaliwoo loolee aw ma ci yàq aw ma ci defar ndax lu sëriñ Saaliw defar moom man soxal rek laa ci xam say mbir moom taxul may wax waaye yooyu yi nga def moom moo tax may wax te loolu ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañ ko. vidéo yaa ngi fi ci internet bi bi ko seex bi di wax. te sëriñ Béthio. bi sëriñ Saliou làqoo. siyaar bi njëkk a def dem dem siyaar général Serigne Seex boobu Alaaji Baara fi ne woon. keroog duma ma gis Touba wala sax lu musul am ci yoonu murit keroog maa ngi koy doog gis. te sama atelier laa toog. di ñawal waa kër Serigne Béthio yi. ji soxna doomam ju tudd jaxeer toog sama atelier di di jël si ñawam mm-hmm. ci sama télé bi télévision bi ci atelier bi mm-hmm. ñu ngi seetaan journal télévisé Alaaji Baara lim télé Cheikh Béthio journal télévisé lañ ko waxee ne Cheikh Béthio bu ñëwee bu subaa Touba bu wër jumaa ji bu jaar ci 28 bi maanaam limité ko mm-hmm. yemale ko ne ko bu mu fi yëngal dara bu mu jaar fii bu jaar fii bu mu jaar fii bu mu fi yëngal dara pourtant seex bi noonu la def de tegu ci baat te liñ tàmmoon mooy dajaloo ndaam ndaamaatu fa lañ doon xaarante ñépp seex bi jiitu yéeg ci kaw oto bi ñuy woy Serigne Saliou di feccal Serigne Saliou ba dugg 28 dugg biir Touba wër jumaa ja sox buntu kër Serigne Saliou loolu lañ daa def noonu nañ daa siyaaree ji Serigne Saliou keroog alaaji baare loolu la teree Cheikh Béthio loolu terewul Cheikh Béthio forcé de daa jëfe ndigal li keroog ba ñu yeggee Touba GIGN yi GIGN yu Sénégal yëpp xanaa keroog fa la alaaj baara Touba la leen indi koñ boo taxaw camion yaa ngi taxaw ñu ngi seen lacrymogène ñu ngi takku ba fees takku ba dëgër jëmi yëpp ñu def ñu doxe ak taalube sëriñ Béthio li ma la wax sànq tàmbali bi mhm. li na ci moom ñii nga xam ne ñoom ñoom mooy mooy mooy mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo de dañoo jàpp ne ndeysaan dañoo juum. dañoo jàpp ni comme. dañoo jàpp ne. Mhm. ñoom ñoo doonu Cheikh Béthio wala ñoom la ci ñoom la Cheikh Béthio ne dañoo juum. nañ ko wax directeur Cheikh loolu na soxna Aïda jàlloo dañoo juum. wax nga léegi ni sax sëñ euh, Cheikh di Mokhtar tere woon na ko loolu ba mu jëlaat. dañoo ci ak njuum te dama lay leeral rek loolu dindi na ko ba tey ji nag soxna da Diallo mi ngi am doole lool am ay. taalibe di dox ak euh, doole loolu itam ku jege woon sa ci sëñ Cheikh Béthio en tey noo ko gisee. dañ ci ak njuumte lañ ne. ci mhm. ak réer lañ ne te tegu nañ ci gaal goo xam ne buñ dëppul dëpp gi sax gëmuma ko jomu ma sax dinañ dëpp nag far ndax sëriñ Touba mooy Serigne Mountakha Serigne Touba. Mhm. yoonam wii du fi bàyyi mukk ku mu wóoluwul du fi ku fi toog moo la fi teg. mooy suttiku ci yow sëriñ Muntaxa laata muy doon xalifab sëriñ tubaa de sëriñ Muntaxa mu sëriñ Basiiru la woon dégg waaye keroog ba mu toogee ci jal photo yi sëriñ Tuubaa bi la sëriñ tubaa suppiku dugg ci jëmmam ji doon sëriñ Tuubaa ku mu digal sëriñ Tuubaa la digal ku mu tere sëriñ Tuubaa la tere fu mu joxoñ na fii la feneen fu waaye jaar loo fa dajal boo yeboo nga seet ne neneen noo def waaye yow wàcc nga yoon wa génn nga ci yoonu murit booy jébbalu looy wax jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma ba loolu moo lay dugal ci yoonu murit loolu moo lay génn ci yoonu murit yoonu murit ndigal la sëriñ Béthio mii dalaa sàkku ndigal sëriñ Seex la jébbalu bi sëriñ Saaliw Mbàkke làqoo moo ne day bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax ci mbirum baatin mm. sëriñ Béthio sëriñ Saliou nee na ko yoonu yoonu lislaam yoonu murit wii kenn ëpp la ci daraja mm-hmm. billaahi wallaahi wataalaahi sëriñ Saliou Mbacke moo na sëriñ Béthio yoonu murit kenn ëpp la ci daraja mm-hmm. loolu terewul ba sëriñ bi defee secret sëriñ Saliou Cheikh Béthio daa raam ñëw jébbalu ci sëriñ Cheikh mm-hmm. ànd ak moom tey déglu ndigal ku ne gis na keroog bi ko Serigne Cheikh joxe xel koom ak Maodo Mouride. Mm-hmm. lam fa liggéey lam fa lam la fa Cheikh Béthio liggéey ak mbooloom. Mm-hmm. nangoo doon taalibe ñoom nag wax ji dama koy wax mu leer. Mm-hmm. ñoom dañ ne. Cheikh Béthio moo ne woon ayda Diallo man Aïda Diallo laay wax. bu fekkonte ne tegu na ci yoon dama naan soxna Aïda Diallo. waaye Aïda Diallo laay wax. ñoom dañ ne sëriñ Béthio moo ne woon Aïda Diallo yaay man maay yow gis nga loolu du waxi dara man taalibib Cheikh Béthio Thioune laa mhm. Cheikh Béthio rek laa yaakaar àddina ak alaaxira mhm. dama cee xam loo xam ne nag du lu ñuy mën a jéeméer àdduna sëpp di ko dégg waaye su ma leen waxu dara du waxi dara mhm. ndax euh, nu ma la ko mën a waxee euh, ku ku déedéet boobu duma ko wax boobu day diis ci ñenn ñu ko ñu ñu toll fu ma toll mm-hmm. waaye du waxi dara ndax mm-hmm. sëriñ Béthio li ci moom mm-hmm. defu ko ci moom li ci moom defalu ko boppam ki ko ci defal dana ko ku dul yàlla sama borom xamu ko te mën manaa wàcc ci yàlla billaahi wallaahi wa sëriñ Béthio du yàlla kon xamu ko ba koy def ci keneen képp ku jàpp ne soxna Aïda jàll mii. Mhm. moom mooy Serigne Béthio gis nga jëmmi Serigne Béthio ah. Mhm. mook sama jëmmi baay ñoo yem. ma nga ñu suul Touba gas ba mu xóot suul takk loxo ya takk tànk ya saañ bakkan yi saañ nopp ya comme ni ñu suulee sama baay noonu lañ suulee jëmmi seex Béthio mhm. jëmmi Cheikh Béthio amul solo mbiram moo am solo. waaye ku jàpp ne yaay jëmmi Cheikh Béthio te mën na maa wat ci yàlla billaahi wallaahi wa taalaay ñoo ñu kooku yi ñu koy jiiñ moom moo gën a xam ne du moom ak soreek Cheikh Béthio moom moo gën a xam ne du Cheikh Béthio jegewu ko dalub Cheikh Béthio sax jegewu ko sëñ Béthio naqaree xam ñoom ñu jàpp ne mooy jëmmi seex Béthio jëmmi seex Béthio moom amul solo li Sëriñ Tubaa def ci moom mbiram ma loolee moo am solo ndax mhm. sëriñ Touba du mbirum jëmm leeruk yàlla la goo xam ne mooy seet jëmm ju soob mu dugal ko mu dugal ko ca moom mhm. waaye moom mooy soob moom sëriñ Touba mooy soob mhm. moom lay neex mu jël ko dugal ko jëmm jeneen jëmm ju ko ju ko ju mu soob ñu profité annoncé na ñi nga xam ni itam boobaak léegi ñu ngi doon xaar ñu bi téléphone yi mën nañu mën nañu woote jot sañu Cheikh luñ ko bëgg a laaj ak waxtaan wi nga xam ni it booba léegi ñu ngi koy topp luñ ci bëgg a joxe contribution bisimilah. Mhm. jëmmi Cheikh Béthio wala yaakaar ne yow yaay Cheikh Béthio wala li newoon ci Cheikh Béthio moo ne ci yow ku ko wax ku ne dafay fet ah maa ngi tuub sax ci baat bi. Mhm. waaye waxul dëgg. waxul dëgg de. Mhm. loolu cër boobi Serigne saali waxoon nag Cheikh Béthio ne ko. cërub yàlla bi wàcc sama wanag de benn képp la te yow lañ ko jox joxuñu ko doom joxuñu ko jarbaat joxuñu ko mbokk yow dong lañu ko jox cër boobu yi kenn xamul lu mu doon nekkul cër boo xam ne Cheikh Béthio koy jël di seet ku mu neex mu jox ko ko déedéet mhm. loolu mbirum sëriñ tubaala mbirum sëriñ Saaliw la mhm. du te li ma ci gën a metti nag mooy sànn bu ñuy wax di wax ay sëriñ seex waaw ñu ngi ñu ngi ah, ñaanal Serigne Cheikh te gëmuñu xaaju xaajadu waa Kër Sëñ Touba sax gëmuñu leen dañuy rafetal ci wax nii rek yaakaarul leen gëmuñu leen ndax xam nga lu tax. Mm-hmm. gis nga cant gi man bi muy tàmbali sama kanam la. Mm-hmm. lépp Serigne Touba la woon. Mm-hmm. muy sëriñ Touba cent pour cent lépp Serigne Saliou nangu ko. waaye biñ demee ba. ñu jël Serigne Béthio ber ko. Madinatu Salaam. Mhm. tàggale kook njabootam gi. Mhm. def seeni yëf ba sëñ Béthio bëggatul a gis sax doomam yi ak sëñ Béthio ni mu bëggee njaboot. Mhm. ak ni mu fonkee woon njaboot gi ak ni mu ni mu njabootam gi ni nekkee woon ci ay yitteem. ak ni meloon ci njabootam gi ñu def seeni yëf def seeni seeni mbir yu doy yoo xam ne làmmiñ bu ko tudd nopp bu ko dégg toj da ci am loo xam ne. dama ko dul mën a wax ci jéem maanaam jaar ci digg bi xaañ li ñuy wax xaañ. Mhm. du ma ko man waaye junj doy na borom xel te nag lu ñëpp xam loo ci wax mu doy waaye yaakaar ne ñooy Cheikh Béthio. Mhm. ndax nañ seen bopp lii ñu ne du diine lislaam moo dañoo yaakaar ne Serigne Touba ay nag la dàqi nag Serigne Touba yoonam bi kañ la nag nag nag nag bokk. Mhm. Serigne Touba da ngaa mës dégg ñu ne mës naa woote dara ba rey nag. Mm-hmm. déedéet ah lan nga mës a dégg Serigne Saliou ba Serigne Touba nekkee de ba mu wootee màggal ga ku ne xam na ne Serigne Saliou woo njëkk joom am xar mm-hmm. kon Serigne Touba yoonam wi ay nag sa su de ay nag góndiwu ci kenn ay nag te Aïda Diallo dañoo yaakaar dafa am xaalis Aïda Diallo amul société déedéet amul usine buy liggéey di ko du ko ñu koy versé créé wul dara ay taalibe Cheikh Béthio yi moom la jëloon boole woon leen ak moom mu nekkoon seen jëwrin dégg nga li ma mm-hmm. ñu jébbulu comme moom ni mu jébbulu woon ci Cheikh Béthio ñu dem ba yàgg Cheikh bi créé ay jëwrin yeneen xeeti jëwrin te yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñoom ñoo ko créel seen bopp jël Cheikh bi ber ko yóbbu ko Madinatu Salaam tëj ko fa di ko defloo ay xale yu jigéen yow sëriñ Béthio fan nga mës a gis ab sëriñu diine sëriñu murit sëriñu lislaam bu toog ay jigéenam ay ay jigéen rek wër ko ñi teg seen i greffage ak seen i rose rekk lèvres di teg ñu ne yàlla ak yonent bi yàq cant gi lañ defoon saboote liñ def dara du ci lislaam jël sëriñ Béthio walbati lu ne ñu wëlbati ko ci moom ba sëriñ Béthio ñi àndoon nag moom di ay mag ñëpp dem ba xàmmeetuñ sax sëñ Béthio hmm. waaye sëriñ Saaliw dane woon sëñ Béthio doo yàqu doo yàqu de te kenn mënu laa yàqal maa ngi lay yëgal ni gis nga dem gii sëriñ Béthio dem day ndimbalam moom day ndimbalam sëriñ Béthio ba roogee bu dellu suwaatoon ak ay tànkam di wax eh, loxo dar gémmiñ nii mu def nii rek la baaxee te maa ngi la ci yëgal leen nag nit ñi dañoo yaakaar ne loolu mbirum saayir la waaye du saayir de ni sëriñ bee Béthio defoon ba doomam yi jegewuñ ko mhm. buñ ko jege woon rek mbir mu demee nii ndax buñ ko jegewoon woon dinañ ko boo dinañ boole doomam yi ci mbir yi ci yëf yi ba doomam yi kon kon kon musiba am waaye sëriñ bi xam na seen i mbir xam seen pexe xam ngu toll nii moo tax mu sorele doomam yi xam na ne moom moom mhm. moom moom dugg na ba noppi mhm. moom moom li ñuy wax taq ci répp moom moom taq na ci ba pare moom waaye ndonoom li sëriñ Béthio fexe na ba lijjanti ndonoom li fexe na ba sëriñ Saliou ndigal cuun sori ba ñoom ñi nga xam ñu ngi def seen i jàpp boole wuñ sóoraale wuñ sëñ Sall nii muy doxee tey jii dina ko mën waaye li yëpp mbirum sëriñ Béthio la. lu jeexal sëriñ Touba la lu jeexal ci moom xam naa ñàkkul ne xam nga ko jegewoon nga ko tey mooy xalifa sëñ Béthio dëgg yàlla itam gis nañu yaram. taxawaayam nangu ndigalam ak wax dëgg yàlla liggéey boo xam ne ñu koy liggéey ci ci kër sëriñ bi ñu bàyyi la foofu ñu jeexale ko. waaw sëñ Sall nii lu mel rek la mën a mel nii rek la mën a mel ndax lii la xam ndax sànq bi ñuy tàmbalee maa ngi la naan dañ daa toggal sëriñ bi dañ ko daa toggal ajjuma ak samedi ndax xam nga ni sëñ Sall mii mu nekkoon xale bu ndaw moo daa dawal oto bi hmm. buñ toggaan ba pare. ba yàpp ko ci oto bi sëñ Saal moo daa yóbbu oto moo daa yóbbu xéewal yi si daara yi fu sëriñ bi ne moo ko fa daa yóbbu ànd ak baayam bii bëgg ko lool ba yegg ci ragal ko sëñ Saal xamee wuñ ko lenn lu dul ànd ak baayam bi ci liggéeyub sëriñ tubaab bi fu sëñ Beeto te ku ne gis naa màggal màggal yi nga xam ne sax vidéo yaa ngi fi fu sëriñ Beeto dee dem ci sëriñ Saaliw sëñ Saal la daa àndal. dem ba di ko sàkkul ngërëm ci sëriñ Saliou hmm. ba sëriñ Saliou naan moom de na nga fexe ba fexeel ba teg ko ci yoon de ba mu làq sa ngërëm hmm. ndax sëriñ Béthio da ko doon sàkkul ak mbaax da ko doon sàkkul sax lu mu xamul woon hmm. Serigne Saliou lu mu ko daa tontu na nga fexe ba teg ko ci yoon ba mu am sa ngërëm bu amee sa ngërëm rek lépp li nga bëgg ci moom dina ko am dina ko def te ku ne gis na lu bu yàggul rek Cheikh Béthio fu muy gërëmee Serigne Saliou Serigne Saliou ndigal te ngërëm loolu ñun man Cheikh jàng dama cee dam seere ndax dama fekke dama gis Serigne Sall cuun ni daa ànd ak liggéey bi ak mbokk taalibe yi dañ daa jàpp boo boo xamul boo xamul waa kër Serigne bi sax doo jàpp ne Serigne Sall doomu Cheikh bi la ndax liñ ko daa teg moom laa teg moom lañ daa teg taalibe yi booba Cheikh bi amul oto buñ mësaan togg dadaa àbbu communauté urbaine oto benn fourgonnette bu bleu. Mhm. te lañ daa teg oto ñam yi teg bool yi sëñ Saal moo daa dawal boobu seex bi comme chauffeur fonction moom la amoon. Mhm. te comme dimanche samedi ak dimanche comme euh, administration chauffeur duñ liggéey samedi ak dimanche. Mhm. donc chauffeur ba day wàcc ñibbi. sëñ Saal moo daa dawal. daara yëpp sëñ Saal dem na fa yóbbu ay xéwal waxtu wu nag dawal na ko. kon kooku ci loolu lañ ko nàmpatal ci liggéeyal sëriñ bi lañ ko nàmpatal kooku mhm. xamul lenn lu dul liggéeyal sëriñ bi mhm. nii mu tewee demee nag day ñaari mbir day ndigalub sëriñ tubaa day day day day day li nga xam ne mhm. mooy yoonu murit ba noppi mu dollil ko ci leneen mooy ndigal moom sëriñ tubaa ko jox ndigal moom daa donn mbiru ba pare ñu tegal ko ci lenn mooy ndigal dañ ko jox ndigal ne ko doxalal loolu mu musul am moo tax lii mu lii mu man daaw mën ko ren bàyyil ba déwén mhm. sëriñ saal dina def lu gàcceel lu Cheikh Béthio doon def xam nga lu tax mhm. mbirum sëriñ Touba la sëriñ Sall dana woon Cheikh Béthio hmm, sallaahu day na nga jàpp say mbir day mhm. fii ak mbirum sëriñ tubaa ngi dox say mbir day dox say mbir di dox kon sëriñ Sall lii mu tàmbali dana ko weesu dana gën a mën te dana gën a neex ci moom nañ ko ñaanal ak mucc. yàlla na ko yàlla defal. yan ko ñaanal wér. yàlla na ko yàlla defal jaajëf xam naa bég nañu ci waxtaan bi li mu fi indi lépp wax dëgg yàlla ci ay njariñ li ñu amoon ci waxtu jaax na xam naa dañ lay bàyyi rek kàdd yu mujj yi. kàddu gu mujj gi day sëñ góora xanaa am santaat santaat sëriñ Béthio rek ndax euh, sëñ Béthio day. taalibeem yépp a ko amee ak cant képp ku naan taalibe Cheikh Béthio la rek ameel na cant Cheikh beeju cant goo xam ne mën naa xam fu muy tàmbalee waaye mënut a xam fu muy yem mhm. ndax sëñ Béthio day defal na lu nu suñu bàyyi mënul bu ko amoon it du am xol ba mhm. sëriñ suñu bàyyi ki ñu suñu waay jur yi ci wàllu saa yi rek laay wax de mhm. jaar nag ñun foofu suñu bàyyi bu ko amoon it du ko def Serigne Saliou ñaata parcelle la jox te ba muy joxe. Mhm. képp koo xam ne sëriñ tubaab mooy sa maam Serigne Saliou woo na la jox la ay terrain. Mhm. ñii am nuñ def seeni i terrain beeto Béthio ñu wax ko jox ko ay terrain ju mat ñaari junni mu tracé lépp woo ay taalibeem di leen ko jox ca jannatul maxwa mhm. te ku ne xam na ne jannatul maxwa lan lay teg àjjana mu mayee ay taalibe seeni kër. taalibe Cheikh Béthio yi ñi ci amul kër ñu néew la xanaa ñu mujj ñi ba ba ko Serigne Saliou Mbacké ne ko foofee nga cosaanoo maa bëgg nga dellu fa sanc fa muy Madinatu Salaam mu tuddoon Touba mu tuddoon Kër Samba Lawbe mhm. Serigne Saliou woo jox Cheikh Béthio ndigal ne ko tuddee ko Madinatu Salaam mhm. maa bëgg nga dellu fa sanc fa Cheikh bi dellu fa wut fa terrain jënd fa ay tool yoo xam ne ay pël ay séeréer yu fa nekkoon la te bayatuñu woon seen suuf ñu ñëw jaay ko seex bi seex bi jënd ko hmm. may ñu ko de addi yi ñu koy jox muy dajale moom la jënde suuf si woo ay taalibeem di ko may ba ci man mii hmm, hmm. yow góor a man de sama baay bu amoon ay terrain bu dee rek lay do laay jot ci ci terrain de xanaa ci ndonn la ndonn la waaye yëkkat terrain may ma wax ma koo fi dégg bàyyam may ko terrain mbaa bàyyam may ko kër mm-hmm. sëriñ Béthio dimbali nu mm-hmm. man moo may soxna moo may ñaanal lu ma am moom lay ñaan moo ma may soxna keroog ba ma may soxna tàgguwuma yëgaluma mm-hmm. damaa ñëw di ko siyaare boobu maa ngi jóge jóge daara sëriñ Saliou Mbacke jox ko ndigal ne ko sama ndongo yi ma yeewi day damaa bëgg nga wëtal ma nga seetal ma leen ñi ci mat am soxna nga wëtal ma leen ay soxna te koo wóolu wóolu naa barki Serigne Touba. ne ko koo wóolu wóolu naa ko Serigne Béthio ba mu may may soxna tàgguwuma samedi laa ñëw yore 2700 sama poos wàcc ci taxi bi. Mhm. ñëw raam di ko siyaare ma seex jógal taxaw comme damaa ragal jamono yooyu man dama ragal mbooloo. mënuma mhm. seex jógal taxaw ma jóg taxaw mënuma demal ba ci digg ba ma dem ba ci digg ba taxaw ma tey dama lay gërëmee ak soxna billaahi war barki Serigne Touba. Mhm. ma tey dama lay gërëmee ak soxna. wooturu soxna si mu jóg ñu boole ñu booleen bañ may may soxna 2700 laa yore 1000 francs bi moom laa ko siyaaree mu desee ma 1700 Mermoz ak ak ak géejawaay 1500 la taxi. Mhm. waaye comme man su may ñëw taxi laa jël su may ñibbi taxi laa jël. Mhm. ndax su may ñëw gars yi xam nañ ma. Mhm. su may ñibbi gars yi xam nañ ma ñu su bëri dama leen di yóbbaale. ndax du may dugg ci puus puusal ma toog yi. foofu laa tolloon. looloo taxoon yu may ñibbi. ma jël 1500 paas taxi keroog bi ma yeewoo 200 francs moo nekk sama sama poche 200 francs mhm. ma yeewoo bi ma nee sama waajur. may nag ma soxna. am na kuy kuy kuy woote ku baax salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa ngi ci émission bi. bismillahi seytaan rajim allahuma salli ala sayyidina wa ala muhammadin wa sallim ak Mm-hmm. di la ziare bu baax di ziare mboolem internet boobu suñu Touba Argentine TV mm-hmm. di ziare suñu mag jooju nga invité di suñu magum taalibi di suñu ndijaay di ko xam ne moom wax dëgg yàlla mën nañoo def ay ay seere moom mm-hmm. waaw ndax ànde man moom yàgg na ba ak si ci réew mm-hmm. waaye ak taalibe rek man xam ci moom macha allah mm-hmm. ak bëgg sëriñ Saaliw lool waaw wax dëgg yàlla ñu ngi rafet lu baax waxtaan mm-hmm. tey dëkkal li mu wax lépp ba ci fii mu toll nii nii ñu gën ko may soxna deux mille sept cent lay wax ci boosam suñu biir buñ koy waxtaanee ziare baax sëñ Cheikh Diagne. Mm-hmm. ñu ngi ziare. bokk nañ ak maam Cheikh la. baat bi daal xam ne ah maam Cheikh maam Cheikh wax nga dëgg wax nga dëgg ndeysaan. maam Cheikh. ndeysaan ñu ngi ziare baax macha allah. yàlla na Serigne Touba boole yool bi. wallaay wallaay wallaay rafetlu na bu baax. maa ngi lay ziar bu wér yow it ndeysaan. am na am na solo lool wax dëgg yàlla. ndeysaan. waaye yow it. yow dama ne bokk ci ci ci ñi nga xamante ne si wax dëgg yàlla. ci njabootu Serigne Saliou bi ndax kenn ku ci nekk rek xam na ne Serigne Saliou ndeysaan waaw mhm. waaw maam Cheikh ndeysaan waaw kon kon kon nag suñ ko liggéeyee ba làkk gërëm wax dëgg yàlla wàcc bi ndeysaan loolu yàlla na rogalaat ak suñ jëm

ndeysaan dëgg la. waaw ñu ñu ñu ñu ñoo ñoo ñëwandoo. Mhm. sëñ Gora. kii di wax ñoo ñëwandoo fii. maam mhm. ñoo fi ñëwandoo te ndeysaan euh, nañ àndee woon moom it soppikuwul ba léegi. Mhm. dëgg la dëgg di wut bëgg lu baax di ko wut rek ci laa ko xam. te bëgg Serigne Saliou ba ndeysaan bu muy wax na damaa bëgg Serigne Saliou moom it ndeysaan noonu laa ko ko mën a waxee. waaw moom ak bi rek bañ na ko waaye nag mënul ñàkk. moo tax turandoo lu am solo la. kuy tuddee sa doom. na nga ko tuddee jëmm ju baax. waaw maam Cheikh ku tudd maam Cheikh da mën a baax mënoo bon. mënoo bon ci yoon nii ngay mëneel. boo ko bëggee def sax turu yi bañ. boo bëggee mel neneen sax turu yi mooy bañ. wallaahi sëñ Gora mbaa xam nga ne tur dina yóbbu nit àjjana mbaa mu yóbbu nit ci safaan ba. fekke naa. Mm-hmm. Serigne Béthio am ko tudd maxet Maxeet Maxeet Jaañ ñëw di jébbalu si sëñ na ko yow mii day sëriñ Saliou nee na ma mhm. fii ma toog nee ma na nee na ma naa soppi sa tur wi ndax sa tur wi boo ko deewaalee safara nga kenn mënu laa ram hmm? barke Serigne Touba maa ko fekkee Serigne Béthio na ko Serigne Saliou nee na ma léegi léegi fii ma toog nee na ma naa soppi sa tur wi ndax boo ci deewaalee sawar nga jëm te ku jébbalu doo dem sawara waaye tur bi faw ñu sa soppi ko seetal weneen tur mu ne ko seetal mu ne ko man Serigne Saliou laa moo ma neex kon tuddal Serigne Saliou mm-hmm. kookee daa bokkoon ci ñi Serigne sax Serigne Ba sax yóbbu ci daaray sëriñ Saliou jëm ñu doon ay ndongoy tarbiya mu ngi mm-hmm. tudd Sall Diagne Sall Diagne ñu koy wax Sall Diagne mu nga dëkk Grand Médine léegi ma nga Touba kon tur lu am solo la kii maam Cheikh ndeysaan maam Cheikh ma nga ba bisan e, defe naa bisa Mercedes ca Cordoba mhm. fa lay wootee ndeysaan mhm. nuyul ma sa mag ji mhm. Souleymane ñoom Modou Lo ñoom Mbay Mbay Samb ak ñoom Jili Samb ñu gërëm ko maam Cheikh xam naa lépp am na solo ay wàllu waxtu wi waaw mhm. kon tey suñ góor xanaa santaat rek li ñuy wax rek naan li dëf ci nag lépp xajul ci cin li waaye mbirum Serigne Béthio day kanam la jëm de te dara du ko yàq waaye li sëriñ Serigne Mountakha wax rek ci ñooñi nga xam ne sànni na leen ci mbalit ma nañ leen sànni ci sën wa nañ leen sànni ci sën ba rek te man de fii laa koy waxee ñëpp li ma dégg mhm. man li ma xam man de xam naa ne ñoom duñ dëpp ndax. la def ak seen nag ak lañ def ci seen bopp ak nañ ko doxee ak nañ ko defee àdduna du soppeeku bu amee day ma xam ne nag kii maa dëgg feeñ na nag bu amee ba son Aïda Diallo ru raam sukk sa kanam sëñ Saliou Gueule Tapée sëñ Saliou ndigal nii mm-hmm. Aïda Diallo ñëw sukk raam non loolu du am bu amee nag dina ma bett ndax damaa xam lu lu lu lees lees waxul maa xam lees waxul mm-hmm. waaye nañ leen ñaanal ndeysaan xëy na sax ak bëgg xër moo leen moo leen ci yóbbu. Mhm. waaw waaye ndigalu Serigne Touba ku ko wàcc di nga gaynde gu lay fàtte de moo ne day sëñ góor a mhm. bët ki de moo njaay xale bu ndaw jox na ko ndigal mu jafe ko de mooy ah préfet nee na ko bu fi baas bu fi yëngal moo ne jafe na ko de mhm. mënoon naa dëgër bopp nag comme ni mu dëgëree bopp ci Serigne sëñ Serigne Mountakha woo ko teree ko mu bañ digal ko mu lànk xale bu ndaw woo jàkkaarloowul ak moom sax de te sëñ Muntaxa ak bari bëri yërmande daa ko woo ndeysaan teral ko jàpp jàkkaarloo moom di maslaha ak moom waaye fee xale bu ndaw bind këyit këyit ne ko ba nga yëngal fi rek ba nga woote fi mu respecté ko moo nañoo jéngu mënoon nañoo jéngu xale bu ndaw moo ko jox ndigal mu jafe hmm. Sëriñ Tuubaa jox la ndigal nga lànk ku ci dee sawara a jëm. yàlla yàlla walbati yàlla na leen yàlla wóor leen ci yoon wi gën gërëm nañ la sant la bu baax ci itam jataay bi nga xam ni yaa ko sàkk woon waaye itam wax dëgg yàlla fi jamono toll itam laaj na waxtaan wu mel nii ndax indil nga ñu xamal ñu hmm. sëriñ bi diggam ak sëriñ Saliou waaye yéen ñi nga xam ni itam yéen a nekkoon ci moom ñu leen dimbalee xemeem loolu leen sëriñ bi mu taxoon ngeen wan ginnaaw lépp am yéenay liggéeyale sëriñ bi ngeen demee ci daara ji yooyu yëpp wax dëgg yàlla fàttaliwaat nañu ko mu doon loo xam ne itam nees na ci jàngawaat lu bari ndaw ñi mën nañ ci jël bind mag ñi fàttali ko ci ñu ngi lay gërëm it ci déplacement bi wax dëgg yàlla jóge bu sori waaye defe naa li ñu fi wax jaax na sax yaakaar naa dem réew ak réew mm-hmm. sant nañ la bu baax gërëm la nga ñaanal itam tawfeex nga liggéeyal ku tedd ki itam yàlla na nga daje moom ci barke sëriñ bi jërëjëf sant nañ la bu baax jërëjëf sëriñ Gora mm-hmm. yàlla yal nañu yàlla suñu borom defal sutura bu yaatu te réew mi ñu nekk it di fi mm-hmm. di fi daan suñu loole yàlla bu su yaakaar tas e, réew mi am na melo mm-hmm. waaye nañ nañ ko damay ñaan mbokk taalibe yépp rek ñu di ko fas ci xasida yi mm-hmm. waaw lu ñu naqaree lu ñu neex ci réew mi rek nañ koy fas ci xasida yi ndax xasida yi mën na lépp xasida yi mooy Sëriñ mën na lépp mën naa soppi lépp kon nag maa ngi lay sant yow bu baax di la gërëm te it di la dolli ñaanal rek ci Touba Argentine TV bi bi fi nga ko xalaat a yeggale yàlla na la ko suñu borom defal lu foofu sa njot mm-hmm. te nga ànd ak taw te mu ànd ak taw fiix mm-hmm. dégg naa loolu wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf ngeen jëf ñu gërëm it mbokk yi ñuy doon ànd ak ñun boobu léegi ñu bind ak ñi nga xam ne diglu gi def leen doon gëdal ñu bind wala ñu woote di leen ñaanal dig jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah